kankurang bi génnoon keroog altine ca Mbour cor fa jaas yi ñu bari Pa man ni moo ko moom nee na kon kankurang ba dafa génn lël amoon lum doon lijjanti ci kaaraange ay nit dogale ko bëggoon ko futti mu caw leen. gàll ko looco gin euh, leen doon xibaar ni ki démb ne kon dafa suuxo ca waaxi jànq ga ca Sigicoor ñeent ña ca nekkoon seeni néew la nu mujjee gis euh, ni ki tey jii. Touba ña lorule woon ca taw ya kuréel ga xalif général des Mourides taxawal dajale nan kon juróom-ñaari téeméeri million ci xaalis CFA ak kon lu ñuy jëfandikoo fukk ak benn junniy doomu adama wala sax ay njabootu ñoo ca lorule Cheikh Yérim Seck retour de parquet la amee Kader Dia retour de parquet Bougane Gueye Dany ñu koy euh, toppee jàll baat ak xotti war ma placé nañ ko garde à vue ne nañ bàyyi Cheikh Yérim Seck coalition takku walu Sénégal ñaawlu jàpp yu bari yi jiiñ lépp euh, président Diomaye fay ak Ousmane Sonko wàllu yoon dinañ ko waxtaane ci bile jotaayu xibaar tàggat yaram Aliou Cissé mi nguur gi fi nekk dàq ñu bari ñu sunu ndaw taseel nee nañ kon mënoon naa dem laataa ko ci lii di fekk ay capitaine am di Kalidou bali delloo ko njukkal Ligue des champions Lille dóor na Real Madrid benn bal ci dara yaatal geeg Mohamed Jodiop suñu gan tey nar a doon Elimane Diouf nekk secrétaire général confédération des syndicats autonomes du Sénégal di CSA waxtaan ak du Sabar ba ba noppi xibaar yi day buur ñu ñaanalante Matar Samb moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag tokki si Joor FM di leen jottali xibaar yi guddi gi nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak kankuran ba def euh, mbir fële ca Mbour nga xam ne nag dafa cor jaasi ñu baree bari loole xewoon na altine bi ñu weesu euh, Pa Cissé mi nga xam ne nag moom la ni moo moom boobu boobule kankuran daal dinay génn def ca ay leeral ne euh, ci lël la kankuran boobee nekkoon dafa génnoon kon doon lijjanti loo xam si wàllu kaaraange moo ko yitteel ay nit dogale ko bëggoon ko futti xotti war maam loole nag la la bañoon a nangu jëflanteek ñoom El Hadji Kawsu Cissé mooy turam dëgg-dëgg ñu teelu ko ko Ndeye Mati Dieng. kankurang si lël amul bés bu muy génn tous les jours yi nga xam ne lël ba mu sampoo la kankurang am droit génn waaye nag ak bi la ñuy lijjanti ndaxte dafa war a am accès si zone d' agglomération war waru am accès si zone d' agglomération loolu la ñuy lijjanti kankurang bu génn dafa génn ngir régler ay problèmes spirituels boo xam ne kenn amul possibilité di ko ŋaang fii di ko wax kankurang bu démb lëndi génnul ngir animation folklorique dafa génn ngir régler loo xam ne spirituel la jaar yoonam dem bu ñëwee nag ay nit riposte si yoon bi mu yor ñaari jaasi ba ñu tee mbagg bi bu koo simbi di xaawi sutura kankurang boo xam ne benn soose waru ko nangu benn borom culture waru ko nangu kankurang bi risafas def li muy def ñu képp nakkabe ko si kër ay salbe yu jug pour libérer seen kéewulo bi nga xam ne képp na nañ ko si kër ñun dañoo am équipe sécurité bu taxaw boo xam ne dañooy compter ay responsabilité individuel action yi mu amee première des choses dañ leen laaj ndax ñi fa ñëwoon xàmmee ngeen leen ñu décliner ay ñu ñu xàmmee si ban cadre ngeen ngeen ñoom ñu wax ñu wàllu information te loolu am na règlement interne boo xam ne dañ koy def si suñun parce que ñun dañoo yaakaar ni problème aada si biir aada lañ koy réglé yi nga xam ne dañ ñu siy tudd peut-être li ñuy wax weex dunk la juju Sekounda moo nekk centre lël yu bëri ñu ngi si kanamam lël yu bëri ñu ngi si ginnaawam moom moo nekk centre ku ñëw romb si buntu lëlam fii créé problème ñu ne moom ku ñëw rombee fële a problème am ñu ne moom donc loolu autorité étatique yi ñooy dawal compréhension di ku ñëpp tuf li nga tooy rek yaa tooñ ñu xam ne juju Sekounda li leen tax a jóg mooy jàmm ak salaam waxtu waxtu yi démb lañ leen doon xibaar gaalug looco gu suuxu ca waaxee jànq ga ca Sigicoor ba ñeenti nit yu nu waxoon ni kon ñoo ca nekkoon ñoom ñeenti ñooñu nag mujj nañ leen a gis niki tey ji waaye nag seeni néew la ñu gis sapeur pompier kon lëkkaloo ca ak ñi nga xam si ñoo fare ca boobule goo xamal ci liggéey bu solo ba mujj leen a daal gis xibaar la boo xam ne euh, suñu ndaw la fare foofee di Lamine Ba moo ñu ko baaxee ñi nga xam si ñoo lorule woon ci euh, taw yi fële ca Touba bi ñu leen wàññee toll nañ ci fukk ak benn junni euh, njaboot am na sax ñoo xam si euh, dañ cee ñàkkoon seen bakkan kuréel gi nga xam si nag Serigne Mountakha moo ko taxawaloon ngir nag toppandi gi ak ndimbal ci wàllu woowee daal nañuy dajale lu toll ci juróom-ñaari téeméeri million ci xaalisu CFA waaye itam ay mbir yoo xam ne manees na ko jëfandikoo loolu nag daan nañ koy xayma xool naka lañ koy lijjante ci njiitalu sous-préfet bu Ndaam Papa Balla Gueye gannaaw ñaari ayu bés ba taw yu metti yi daal di wàcc ci diwaanu Touba lim gi ci loro nag jéggi na dayo lool lu ëpp fukk ak benn junni ci ay sinistré la ñu daal di recensé suñu sukkandikoo ci sous bu Ndaam Abdoulaye Kharma dénombré nañ ñu fukki ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo xam ne dañu am loraange ci ci mbënd mi donc léegi document bi jox ko waa Junatun xool nan lañ ci mën a moom dafa bari bon ñëpp yamale wuñu am na ñoo xam ne seen kër dafa daanu am na xam ne seen mur dafa daanu am na ñoo xam ne ndox mi dafa nekk ci seen biir am na ñoo xam ne seen i la yàq am na ñoo xam ne seen i xam ne seen li li ji ci nga xamante mooy coordinateur coordonnateur Hizbut Tarqiyyah bokk itam ci kuréel gi di xamle ne mbir mi du ab ndàmpaay waaye jàppale la jëmle ci ñi nga xamante ne ñoo loru ci mbënn mi. recensement bi lañ doon fexe ba procéder par benn méthodologie bu leer nañ ba nga xam ne distribution bi dina gaaw waaye dina mucc aj fi ñu ko nii def nañ ay points yoo xam ne ay points magasin yu yaatu yoo xam ne dañu fexe mu jege population yi ndimbal li li ci jiitu nga xam ne moom ñëpp ñoo koy bokk dina am dund masalan lu mel ni diggante ceeb ak dimbali du indemnisation maanaam du approche juróom-ñaari téeméeri million ak yeneen ci ay ndimbal ñu daal di koy jot gannaaw wooteeg xalif général des mourides gi ngir ñu daal di jàppalante séddale gi nag dana door ci lu dul yàgg dara ci anam wu mu gënee mucc ayib suñu sukkandikoo Serigne Youssou Diop mi nga xamante ne mu ngi bokk ci comité pilotage bi doxal ak saytu lépp lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo loorulee ci mbënd bi di junnatun liman nazamao Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Media. Papa Balla Gueye ña faatu woon ca taw yu métti yooyu xewoon ca Touba am na ko xam ni mu nga fekk baax ca Galayabe ga ca Matam da doon daan doolem rek ca Touba ak njabootam nag foofee ca bët sàllumu réew mi xalif général des Mourides daal na fay yónni ab mission ngir nag eh, yóbbu fa am njaalam. njaboot ga itam daal di koy rafetlu bu baax a baaxaali bandeel ñang bokk na ci ñeenti doomi yaa yi ñàkkoon seen bakkan ci inondation ya ci dëkk bu sell bii di Touba sàmba Diallo doon ab ndaw bu cosaanoo ci dëkk bi di Galayabe fare ci biir commune bu Ogo ci waxtu bi nga xamante ni waa këram ñu ngi dund dëj bi ba léegi xalif général kul murit daal di yabal ab ci dëkk bi di Galayabe bokk na ci ñoom nag ay dignitaire ay kilifa murit ay commerçant yu mag ci nekk ca gi délégation bi nekkoon ci njiitalu Serigne Khadim Diop ñëw kon indi njàppandalu njaboot gi ma ngeen jaaleel ma Samba Diallo bokk ci boppam yi nga xam ne ku xam na si mun Mountakha ci yëg-yëgam jullit yëpp moo leen jaboote ba tax na lu mel nii yaakaar naa minees ne ko ci njabootul islaam gépp njabootam te ñu xam ne yàlla moo nu gën ci suñu bopp mu dajeek nag ay téeméeri téeméeri njaboot ndox mi dugg na ci seen dëkkuwaay ñu gën a bëri sax ñu daal di leen di wàllu kii jiite délégation Mouride yeew ca Galayabe di sàqu ci bépp sénégalais tànk sëriñ Muntaxa Ba loola jàngale la mooy dafa bëgg kenn ku ci ne problème ñi nga xamante ne tey dañoo dend ak ay nit yoo xam ne dañoo loru ci mbënd mi nañ ñëpp fu jàppale leen moo tax yëf yi doonatul toog di xaar ab état jéego bii nga xamante nag xalifa kullu murit di sëriñ Muntaxa Bachir Mbàkke teg na ko ca Galayabe njabootu Samba Diallo muy loru woon ci mbënd mi ca Touba rafetlu nañ ko lool mu doon sax ab réconfort ci seen bopp ndax ci diwaanu Matam lii kilifa diine gu mag gi def dañ ko jàppe sax ab sagal bi nga xamante ni sagal nañ ko ko gannaaw bi nga xamante ni jébbal nañ ko boromam mu nekkoon sa naataango Waly Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. Waly Bandel Niang jombul ne ndoxi taw yi ñoo ko soj ñu koy mastawu bu baax a baax suñu ndaw la ñu teewal kon foofee ca Matam Abdourahmane Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñeenti mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu xibaar yu bu te wóor. Abdourahmane day mujjee fanaan police. loolu lañ ko notifié sànq nii matul euh, fanweeri minute ginnaaw bi nga xamee ni euh, déglu nañ ko lu mooy euh, juróomi waxtu mën nañu wax ni sax 17 heures la audition bi daal di pare. ci lañu doon xaarandi nag euh, ban dogal procureur daal di jël ci li nga xam ni moom mooy ginnaaw buñ ko dogloo bañ koy joxoñ baaramu tuuma ci lu jëm ci wàllum saaga waaye tamit euh, diffamation euh, mbir yu ñaari mbir yooyu lañ koy toppee ci la ñu daal di décider nii dañ fay am garde à vue procureur boobu sax suba incha allah Bougane Gueye Dany dina jàkkaarloo ak euh, moom daal di koy euh, dégluwaat ci mbir yi nga xam ni moom lañ koy joxoñ baaramu tuuma waaye nag ba jamono ji may wax ak yéen nii ñi nga xam ni ñoom ñooy avocat am ba léegi euh, wàccaguñu génn ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy way taskatu xibaar yi bañ ñu jox ay xibaar yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yaatu waaye li am ba des moom mooy garde à vue bi ci ay vingt heures de mi lañ ko daal di notifié ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany Serigne Saliou Seck. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Abdourahmane Diallo dinu toppal mbir mi kon boobaak léegi leneen lu fa tukkee euh, dinañ leen ko baaxee coalition takku wàllu Sénégal itam lu arrestation yu baree bari nga xam si daanaka ñi ngi koy def ci euh, ñetti fan yi lépp nag ñi ngi ko jiiñ tandem euh, président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko mi nu jàpp ni yile mbir yëpp nag ñoo nekk ci ginnaaw te itam mbir la moo xam ni day delloo gannaaw li le di démocratie réew mi sàkku ñu jàpp ñëpp ñu wàcc leen ñu euh, dellu seen euh, kër Cheikh Yérim Seck journaliste la bokk na ci ñi nu jàpp CAP di coordination bi ëmb kon association de presse yi euh, di nag naqarlu moom leen mbir jàpp ni kon lii day daal di xotti liberté de presse di sàkku itam ñu daal di koy bàyyi moom taskatu xibaar bi mu ñibbi këram ndax deful lu nu koy jàppee Mamadou Ibra Kane ci CAP la bokk ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg ndongo surtout Sénégal lu koy avancé loo mooy ku nekk nga wax sa xalaat ak foo mun ci féete suñu constitution consacré ko comme la liberté de presse ak la la liberté d'expression léegi bu Cheikh Yérim Seck waxee moom lu mu xalaat mu teesante ak le premier ministre dégg nga mhm. mais loolu warul nekk un motif pour que ñu woo ko police dégg nga ba ñu arrêté ko ñu ñu mettre ko en garde à vue ñu koy bund xatal en réalité du Cheikh Yérim Seck rek la bund xatal presse yëpp la bund euh, la ñu bëgg bund xatal wan leen ne ah yéen kat boo leen réglé wul yéen a siy topp mm. te lii raam dem ci Cheikh Yérim Seck ci presse yëpp la jëm loolu nag vraiment ñu ngi ñaaw bu baax a baax euh, nouvelle alternance bi troisième alternance politique depuis bu mu ñëwee ba léegi fitna moo am diggante nouveau gouvernement bi nouvelles autorités yi ak presse bi. am nañu fii situation fiscale bu nga xam ne euh, dañu bëgg wax ne entreprise de presse yi journalistes yi nanguwuñu fay euh, fay lempo kooku du dëgg tey du dëgg ëllëg entreprise bu nekk boo nekki si ay jafe-jafe euh, état bu munti nekk si àddina bi impôt day xool naka la lay yombalalee sa payoor bi pour nga koy fay ndànk-ndànk loolu boo ko refusé boo ko refusé entreprise wala contribuable c'est que boobu da nga ko bëgg a noot da nga bëgg entreprise boobu daal di disparaître ñu wax ki nga ameel entreprise yooyu xaalis ba pare nga ne doo leen ko fay mais vraiment loolu doy na waat si ban état la ñu nekk hmm. Sénégal léegi ban façon état la ñu am mouvement nationale des cadre patriotes euh, fare ci euh, Pastef ne ñoom euh, dañuy jàppal tànk Ousmane Sonko ak doxalinam nag ci présenter comme réew tolluwaay bi loolee nag ñu ni ànd nañ ci naqaru nan itam taxawaayu ñenn ci way politique rawati nañuy fare ci kujje gi janloog taskatu xibaar lañ doon amal ni ki tey jii Mouhamadou Ababayo mouvement national des cadres patriotes mu ngi andi njàppalam ci premier ministre Ousmane Sonko gannaaw ba mu génnee àddu ci situation économique bu réew mi Bassirou Kébé moom la ñu dénk habitat urbanisme ak aménagement du territoire ci PASTEF. li premier ministre def keroog ak gouvernement suñu nekkoon si réew mu normal du sax lu exceptionnel du dara lu normal la parce que dañu bokk si UEMOA te UEMOA moo ñu ne gouvernement bu bees saa yu ñëwee si diiru ñetti weer dafa war a def ab l'enquête ba xool ban situation la fekk réew mi ci wàllum koom-koom ci ay kopparam loolu rek la gouvernement bi waaye tamit day jëmmal jub jubal jubbanti bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye bëgg na ko. mouvement national des cadres patriotes di ñaawlu manipulation bu yenn ci homme politique yi Bassirou Kébé. yaakaar naa ne ci conférence de presse boobu premier ministre ak euh, ministre de l'économie notamment démontré nañ ne président Macky ak ñi fi nekkoon ci ay manipulation ci ay jaxase ak ci ay leb koppar pour Sénégal te daan ñu ko yëg ci lañ nekkoon donc ñun andi na ay solution ngir ñu wàññi bor ak déficit public bi. mais ñun moo kap suñu rôle li ñuy xaaree du rek di wax ay chiffres wala di lire mais tam di indi ay solution wax nañ carrément nan lañuy def fii ba quelques années réduire suñu dette indiwaat ko sous le seuil bi UEMOA wax 70 pour cent wàcce ko waat ko sax ba mu gën a suufee foofu te loolu dinañ si jëm. nouveau référentiel des politiques économiques et sociales ñu dippee ko vision 2050 daañu ko fësal ci kanamu askanu Sénégal niki juróom-ñaari fan ci weeru octobre. jaajëf euh, Mohamed euh, Bayo ñu wax ci euh, wàllu koom ak nag bépp autorité boo xam si nag sàlloo nga budget bu dem ci benn milliard ci xaalisu CFA loole nag faw nga daal di nag dëppoo ak téeméer boo jël juróom ya nga dugal ko ci marché yi xam si kon acteurs yi jëm ci wàllu économie sociale ak solidaire waaye itam petite moyen entreprise yi ñoo fa daal di nekkee téeméer boo jël itam ñaar ya nga jagleel ko jigéen ñi loole itam la ñuy xaar ci collectivité territoriales yi euh, ki ni gisee di euh, docteur Baye Samba Diop nekk euh, directeur réglementation ak affaires juridiques ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Amadou Sabax Ba. arrêté bi nag dafa wax ne képp koo xam ne këru liggéeykaay nga boo xam da ngaa bokk ci nguur gi te sa budget mat milliard war na ci yow nga beral gën gaa néew deux pour cent ci marché yi jigéen ñi cinq pour cent yi këru liggéeykaay yi ndaw yi ñi nga xam ne ñooy yaxantu muy ñuy bokk ci secteur de l'économie sociale et solidaire ak PME yi. loolu nag marché yi nga xamante ni. Euh, moom la concerné surtout mooy lépp loo xam ne lu ñuy jënd la fourniture. wala lu ñuy xalaatlu te budget bi yëpp quatre-vingts millions ñooñu ñoom képp ñoo ci war a bokk keneen waru ko seq ak ñoom bu dee nag lu ñuy tabax la moo xam tali la moo xam bâtiment bu fekkee ne budget bi yées na cent millions ñooñu nga ci war a woo jublu gi nag mooy fexe ba kër këru liggéeyukaayu ndaw yi rawatina jigéen ñi seen wàll ci marché daal di yokk ndax dafa am xeltu boo xamante ne ARCOP da ko amaloon ñu gis ne jigéen ñi kat daanaka un pour cent képp la ñu ci marché yi jëloon ay dogal ngir fexe ba seen wàll ci marché yi mu yokk loolu nag bi nga xamante ni arrêté bi jël na ko ARCOP euh, autorité directeur général bu ARCOP muy Sayer ñaa dafa tegoon projet bu ñu tuddee Small Business ak jublu ki nag mooy gunge këru liggéeykaay yi ndaw yooyu ak jigéen ñi ba lii seen wàll ci marché yi ñu xam yoon war ñu woon mën a jaar ba man cee jot waaye itam dafi pexe ak i matuwaay ba këru liggéeykaay yi leen ko war a jox mhm. ñu wàccoog loolu leen war looloo waral warul na ci képp koo xamante ni yaa ngi yor ko pour nguur ci jo jënd ay marché rapport yi nga xam ne ngay jébbal ARCOP da nga war a wax lan nga jox jigéen ñi ak lan nga jox liggéey liggéeykaandoo yooyu bu dee li nu sàttal ci yow moom nga leen war a jox am na lu ci yéef bu boobaa kat amal nga ak njuumte goo xam ne xëtt na li nga xam ne mooy sart bi àtte marché yi te bu boobaa joyante ci war ARCOP dana ko def membre yi fare ca conseil économique social et environnemental ba fii jotuñu seen ay euh, koppar loolu nag euh, tax ñu daal di am xel ñaar ne loolee kon euh, naam ne jëlee nañ fa seen njiit dañ ko daal di warloo ak ñoom tax nag fi mu toll nii ñu am ci ay jeexi jaaxa Ibrahima Diame. daanaka yëf yi doxatul comme ni mu daan doxee ci conseil économique sociale et environnemental depuis bi ñu dàqee kii di président ba te njiitu réew mi jëloon décret ba. loolu nag tax na ba fi mu toll nii le bu ñu sukkandikoo ci docteur Sadia Fati bokk ci CSE doon rapporteur commission jeunesse et environnement nee na tax na kon ba tey seen indemnité yi gisaguñ ci dara. conseil yi dañu yëg dañu gis ne depuis la fin du mois en principe waxtu bi day fekk ñu jot seen indemnité yi indemnité de session yi ñoo xam ne dañ ko échelonné ci weer ci douze mois yi indemnité boobu nag boobu moo yéex a dugg boobu ba léegi te li tax mu am dañu jàpp ne président bi nu mu fa nekkul ñun Borofane yi loolu la ñuy jàpp. moom mu jàpp ne dëgg la CSE amatul président waaye loolu warul woon mën a tax euh, administration bi ñàkk fa. semaine prochaine ah, mais quand même nous pas des des des des analphabètes nous sommes quand même pour la plupart de grands cadres. bi ñu wooyee téléphone nag kenn ci waa bureau bi te moom nee na bëggul ñu identifier ko lim ñu xamal moo di ne institution bi mooy ay session la ñuy def bu fekkee ne depuis lor nag defuñu benn session duñ leen mën a fay te ñoom ci seen bopp xam nañ ko. Ibrahima Diame ñeneen ñoo xam si jotuñu seen i payoor moo di liggéeykat yi feera ya nekkee ca Ndar Géej tax nag tey ji ci àllarba ji ñu dajaloo ca buntu euh, gouvernance bu Saint-Louis euh, di euh, laaj ñu jox leen seen juróom-benn weeri payoor te nag nee na nguur gi falu tey ji ba ñuy campagne ñoo leen ko digoon ne leen bu nu faloo seeni i jàmbat dina jeex waaye ba fii France loole nag lañ leen doon fàttali Ibrahima Mbodj moo sàlloo seen kàddu ñu teewlu ko Ousseynou Diop. ah ñoo ngi leen di xamal ni leen ñun waa FERA bu Saint-Louis gars yi amel ñu six mois yoo xam ni ba léegi ci suñu ci dara keroog bi fi premier ministre ñëwee dajale na leen génne xaalis jox leen mais xaalis boobu ñun ñii amuñu ci dara boo xoolee sama gannaaw li fi nekk ci jigéen kenn xamul nu mu toll. ay jigéen yu ne ci mbedd bi nettoyé def lu ne sollu ba tey école mi ngi tijji dërëm yoruñu ko maa ngi lancé appel nag premier ministre Ousmane Sonko voté yi ba mu jotee fii Saint-Louis gars yi dañ la votel normal kon nag ñoo ngi lay jooy suñu naqar bii nga xam ne nanga xam ne xaalis bi nga joxe ñun joxu ñu si dërëm te suñu groupe bi am na ñoo xam ni nee nañu jox nañ leen ñoo xam ni comme li nga doon wax toog muy dox moo fi jeex jeexu fi ndax am na ñoo xam ni jox nañ leen ay trois cent mille ñun nag li ñu lay wax mooy ñoo ngi nii pare nañu si suñu mbir pour nga xam ne ñun kenn fayuñu suñu li ma bëgg nag mooy nga toppaat xaalis bi ñi ngi ko joxoon ba xam fan lañ dugal xaalis bi ak ñan lañ jox xaalis bi ñu wax ci ubbiteg campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru collectif bi ëmb amical ya fa fare nag àndunu ci datu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ne nag mbir mi dañ ko waroon a waxtaanee ba jubo juboo Serigne Gakou dara moom mooy seen coordonnateur ñu teewlu ko Kumba Sanjaan Fay. waaw collectif des amicales bu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar dafa nemmeeku woon benn tekkaaral pour ñu ñàkk jokkalante bu am ci digganteem ak ci ñu fi teg muy ba léegi daanaka jokkalante bi demeewul noonu alors que université am na ay chantier yu ñu fa door bay wax waxu ouverture te amuñu ci benn xibaar ñu sàkk woon jotaay boobu jotaay boo xam ne ñoo ko ñoo ko sàkk woon ngir yeggee ko loolu li ñu remarqué ci doxalin bi waaye tamit wax ko gaawaay bi ñu war a gaaw ngir fexe ba université bi ñu mën ko ubbi ndax am na faculté yoo xam ne ak école institut yu programmé seeni ay reprise ci début na ñu commencé démb am na yoo xam ne programmé nañ la set alors que campus bi opérationnel la ko biñ biñ ci waxee ak moom moom waaw wax nañu ni le 19 bi ci la fas yéene ubbi université Cheikh Anta Diop bu Dakar le 17 ci la fas yéene ubbi campus social date boobu comme ni ma ko waxee léegi am nañu ñoo xam ne dañuy tàmbali jàng war a ñoo def seen examen te ñëpp xam nañ ni étudiant bi nga xam ne dañ ci képp sori amul benn mbokk fii fu mu dëkk lu muy lekk lu muy naan ak xelam ni mu war a dalee ba mu def examen yooyu noonu je pense que bu doy waar la te étudiant mënul nekk di def cours alors que campus social bi disponible lool sax bokk na ci li tax collectif bi kàddu yoo xam ne sànni na ko ñaari autorité yëpp sociale ak pédagogique ndax bu ñu jël yenn ndogal yi daa yoo xam ne ñaari yooyu yëpp ñoo war a ànd ndax mënoo jël ndogal ni da ngay tàmbaliwaat jàng alors que ci ndongom yi war a nekk foofu ba léegi disponible kon ci ñaari boor yëpp war nañu harmonie de fi ne fexe ba ndogal bu ñu koy jël day fekk ñaari condition yooyu yëpp mu mu réew mi Matar Samb ñu daanee lekk lël bi nga xam si kon ñu ngi ko doon amal fële ca Kaolack jëm nag ci wàllu euh, kaaraange euh, région bi daal di cay lëkkaloo kon ak centre haute étude de défense et de sécurité li ko mébét nag moo di euh, gën faa ñoŋal wàllu kaaraange foofee nag ci digg réew mi Fatou Mbow ci jafe-jafe nag ñeel wàllum ñàkkum kaaraange ak menaces yi nga xamante ne mu ngi wëy di tere nelaw lii di zone centre rawatina ak diwaanu Kaolack autorités yi ñu ngi jamono giñ toll ni ci ab xeex ngir mën a assurer nag ay intervention yu mucc ay yëpp moom du Mokhtar Watt moo nekk gouverneur bu Kaolack. insécurité boo seetee insécurité foofu foo wax insécurité rek dafa am fi ni foofu la soqeekoo fi mu soqeekoo rek mooy sunu gox yee goxaan yi moo tax ci kaw loolu dañ ne il faut nécessairement pour que mu ñu trouver une réponse efficace ci problème de insécurité yi. façon yi ay menaces d'ordre sécuritaire nag daal dinañ koy nemmeeku jamono ji fii ci diwaanu Kaolack buñ sukkandekoo ba tey ci ay kàddoom. nañu ñaxtu lu bëri ci lu jëm ci mbirum sàccum njur gi lépp lu jëm ci mbirum Sénébar am na li ñuy wax également fraude bi loolu yëpp ay menaces yi am na yu nekk fii la mbirum euh, sécurité civile également gis nañu ko accident yi également ni mu demee malheureusement ñi ñoom ñooy dawal moto Jakarta. mbir mu ni mel nag jaadu na collectivité territoriale yi gën cee dugal seenum loxo waaye ñu gën amal ay waxtaan ngir mën a atteindre objectif yu ni mel général brigade Jean Diémé moo nekk directeur général bu centre de hautes études bu défense ak sécurité. ñi fi nekk aussi pour représenter population yi mooy autorités locales yi pour ñu xool ñëpp ci seen biir naka la ñu mën a collaborer pour que kaaraange bi gën yokk ci dëkk. mooy nit ñi duñu waxtaan seen biir te nit ñi suñu yéen ñi duñ ko mën a régler. jafe-jafe ñeel wàllum ñàkkum kaaraange na fii ci zone centre bi nag daal dinay dajale lii di autorité administrative yi locales yi nga xamante ne daal dinañu jógee ca Kaffrine Kaolack jurbel ak Fatick daje bu ni mel na dara warul ko lu dul ñu sottante xalaat yooyu la jafe-jafe yi xamante ne mu ngi wéy di gàllankoor suñu développement économique social ak lii di environnement bi Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. tàmbale ko ak Aliou Cissé mi Khady Diène Gaye dàq sénégalais yi am na lu ñu ci wax. ñoo ngi ci euh, addu ñoom tamit sénégalais yi euh, suñu ndaw li ñu yebal ci mbeddu ndakaar yi laaj leen ñu ci bari lu ñu xamle moom mooy euh, Aliou Cissé jotoon na bu yàgg mu dem waaye nag li ñuy laaj ñoom kilifa yi mooy ñu gën a nettoyé bu baax a baax lu mel ni fédération sénégalaise de football reportage Idi Sow. sénégalais yu ñu dajeel mbégte la ñu am bi ñu déggee ni Aliou Cissé nekkatul entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal bile Ousmane Cissé ay atam war a toll ci juróom fukk mu yore ab journal ci loxo bi moom nee na Aliou daa tële. ay joueurs ils sont pas blessés nga teg leen ci ci banc bi yow affaire bi c'est critique match capital danga nga war a gagner mais gagnal match bi nga ñëw ñu ne déet waay tu fais match nul nga ñëw tu reviens avec Burkina Faso nga mën ko mu des ñaata ñaata euh, dans les dernières dernières secondes de prolongation ngay encaisser but. soriwul dara ñu daal di ko fekk mu toog ci wetu arrêt car bile mi ngi ñuy xamal ne ali Cissé waroon naa jël lu ëpp ñetti trophée Cheikh Omar Gueye. soo amee génération baax dama koy exploité normalement cette année on devait être à notre troisième coupe mais moom dafa ko il a fait n'importe quoi dëgër na bopp boolewul kenn mais a perdu loolu rek du la mais bu waree dem dafay dafa yéex dafa yéex waroon dem bu yàgg dix ans musul am Sénégal ki fi gënoon yàgg trois ans la si moom mi ngi si dixième année c'est jamais vu. mu yokk si ne. non par contre moi yal na mu yor Habib Beye Habib Beye il est bon mais je crois que Daf est meilleur parce que Daf dafa yor première division yor deuxième division ba léegi il est en en activité. Daf pour moi c'est le meilleur profil Daf Dabo les deux le le père Daf Dabo Dabo kii kii kii gère les jeunes là. je crois que boobu mooy meilleur profil pour équipe nationale pour man. yile sénégalais nag ñu ngi woo nguur gi ñu daal di gën a joyanti fédération sénégalaise bu football. Serigne Saliou gannaaw euh, kon euh, dàqum Aliou Cissé boobee. Euh, joueurs yi nga xamee ne kon ñoom la doon jiite ku ci ne mu ngi àddu capitaine bi nag euh, moom di Kalidou Koulibaly lu mu xamle moom mooy Aliou bëggoon na ko ci biir équipe nationale bi tànn ko mu ñëw jox ko brassard capitaine bi ñoom ñëpp nag ñu doon ànd di dund ay jafe-jafe waaye tamit jubile nañ ndax gagné nañ euh, Coupe d'Afrique des Nations ci juróom-ñeenti at yooyu nga xamee ne kon def na ko ci bopp équipe nationale mu koy sant bu baax a baax di ko gërëm yokku ci ne merci pour tout coach jëm ci wàllum lancement officiel plateforme de mobilisation et de sensibilisation lutte contre la violence ci stade yi euh, cérémonie bi ñoo ngi ko doon amal ci alarba ji ca siège ligue de football professionnel Seydina Issa Lay Diop mooy président bi ñu teewlu kook Soda Thiam ñun ñu taamu bis boobu ñun sportif sénégalais yi toog suñu biir ñu waxtaan ni ah ñun kat suñu biir am na loo xam ni ñu ngi ñuy gàllankoor si suñu développement football ñu tuddee ko violence loolu moo tax ñaar fukki club ak juróom benn yi ànd ak waa douzième gaynde depuis ñaari semaine ñu ngi waxtaan suñu biir xool lan la ñu war a mën a def boole suñu xalaat suñu jëmukaay ak suñu doole ba mën a xeex li nga xam ne mooy violence am sport ndax kenn nekkoon su ñun nekkoon na ci kuréel bu ko doon xeex waaye li ñuy wax synergie des énergies moo ñu boole fii tey. ñuy def lancer appel nag suñu autorité yi leen xamal ni kuréel gi ñu taxaw. mooy kuréel bi nga xam ne dina nekk seen wet. jëmmal seen wet. waaye jëmmal liggéey bi nga xam ne ñu ko doon def yàgg. pour xeex violence dans le sport. di leen xamal ne aussi ñooy nekk seen bras technique. ba bu ëllëgee bépp politique bu ñu war a yëkkati. jëm ci xeex violence bu ñu ñëw ci kuréel bii nan ko matale. waaye ñuy lancer appel aussi suñu moroomu supporters yi. xamal nañ leen ni li ñuy dund mooy suñu passion. mënuñu ko def ci anam bu rafet tant que violence mi ngi am ci biir stade yi. waaye di lancer appel ñi nga xam ne mooy autorité yi. que fi ñu teg seen tànk bu ñu bañ ko teggi. jëpp matukaay ak jëmmal ak ki nga xam ne mooy décision bu ñu war a jël bu concerté waxtaan si ak ñi si war a waxtaanal ñun fay nañ pour accompagner leen ci. waaye di lancer appel aussi ñi nga xam ne looyu principaux acteurs muy joueurs yi di entraîneurs yi di arbitres yi di force de défense et de sécurité ñooñu ñëpp dañ leen woo incha allah. ci benn symposium boo xam ne ni dañ ko organiser pour ñu échanger ay xalaat moo tax tey jii muy 2 octobre ñu ngi lancé officiellement juddu kuréel bi nga xam ne ni moo nar booloo nekk benn xeex violence xam ne moo nekk ci ci stade Seydina Issa Lay Diop beneen tournoi boo xam ne loolu sax moo ko tax a jóg Serigne Saliou muy tournoi bu ANPS section banlieue bu Ndakaaru ñoom euh, contre la violence la ñu jagleel seen tournoi bi résultat yu quart de finale yi mujj yi doon am tey US Gorée moo génnee SMI FC ñaari bal ci dara AS Cambérène qualifié moom tamit ci demi-finale gannaaw bu mu daanee Renaissance sportive de Yoff ci séance de tiro bi but 6 à 5 temps réglementaire 0 bi partout ci demi-finale ñu war a amal ci aljuma ji ñetti waxtu waxtu ci ngoon AS Douane Cambérène Guédiawaye football club ak Gorée di jongante bu 17h jotee maanaam 5 ci ngoon. wax ci euh, résultat ñaareelu bëccëg Ligue des champions yi. moom la ñuy jeexale sax ak match bi ci gën a ràññeeku ñu doon ko déglu sànq ci rajo Futur Média doon dox diggante Lille ak Real de Madrid Lille nag moom mujj daan Real de Madrid muy surprise bu rëy un but à zéro beneen ndam lu yaa diggante Benfica mi daan Atlético Madrid ñeenti bal ci dara Dinamo Zagreb. Maghreb ak euh, AS Monaco def match nul deux bi partout ci côté Monaco nag euh, ràññeeku na ci Lamine Camara mi nga xamee ne moo takkoon brassard de capitaine génn ci 72e minute de jeu jox place am Crépin Diatta ñu def match nul foofee ca Croatie deux bi partout. Liverpool dalal ba noppi daan Bologne ñaari bal ci dara Juventus dem fekki Leipzig daan ko ñetti bal ci ñaar Aston Villa ci dëkkam daan Bayern de Munich muy beneen surprise un but à zéro. club euh, Bruges bu Belgique dem fekki Sturm Graz bu Autriche daan ko benn bal ci dara. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Mouhamed Zodiop ci faram-fàcce xibaar yi tàggat yaram yi. le tour du web ci RFM. ndongo ka dal leen ak jàmm bokk na ci li gën a fës ci internet bi ci àllarba ji mooy coowal justice ak jàpp gi ñuy jàpp ak convoqué ñenn ci ay waay politique ak ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum tasum xibaar Bougane Gueye Dany moom tey ci àllarba ji demoon na nag wuy ji convocation waa division spéciale cybersécurité bu police IGFM dina xamal ni moom njiitu gëm sa bopp gannaaw ginnaaw nag ba nu ko dégloo ba noppi li nu ko xamal ni moom lañ koy toppee mooy lu aju ci wàlluk injure publique ak diffamation yi le kàddu nag ñu jàpp ni moom njiitu gëm sa bopp les jàmbaar mi ngi ko yëkkati bu nu sukkandikoo ci situ groupe Futurs Médias bi ci lenn ci génn yoo xamante ne ni moom la mujjee génn nag jagleel ko këru tasukaay xibaar yi journaliste bii di Cheikh Yérim Seck moom dañ ko daal di yóbbu nak ci retour de parquet bu nu sukkandikoo ci Seneweb mi xamle ba tey bi nekk ca seen TV di Kader moom it mooy ñaareelu yoon ñu ko yóbbu ci retour de parquet koo xamante ne ngi ci ay tànkam di kenn ci kàngamu parti Déthié Fall ba nekk ci Louga di Mor mi nga xamante mooy secrétaire national bu PRP war a dem wuy ji nag ci commissariat police bu Louga niki aljuma ji ñu dëkkmal bu nu sukkandikoo ci nouvelleactu.com ci eMédia waa coordination des acteurs de la presse ñoo yëglu nag di sàkku ngir journaliste bi di Cheikh Yérim ñu daal koy bàyyi mu ñibbi këram reporter sans frontières tamit nu nu mel la daal a transparence des élections ñu gën koo xam ci atel ñoom tamit yëkkati seen kàddu ni convoqué gi ñuy convoqué ka jàpp nag ñii di woy politique yi ak tamit ñiy liggéey ci ay entreprise de presse teguwul ci dara ci Dakar Actu ñoom waa atel di xamle ni kat lii wàllum xoqatal la jaarale ko nag ci lii nga xamante ni mooy justice te ko wattuwul mbébét gi mooy daal lëbëje nag lii nga xamante moo di élection législative yi ñu dëgmal te loolee ñu jàpp ni kenn koo seetaan ca bitim réew Israël ak Hezbollah nekk nag ci jàmmaarloogu waa Israël di xam ne ni kat jot nañoo ñàkk juróom-ñett ci seeni soldaar waaye terewul RFI di xam ne ni donte ni juróom-ñetti soldaar Israël daal dinañuy faatu nag ci ndell yi nga xamante ni ñu ngi koy soqee ca bët gànnaaru Liban mu jëm nag ci ñoom armée Israël terewul soldaaru israéliens yi di wéyale nag li nga xamante ni mooy bombardement yi jëm ci position milice chiite ci wàllu tàggat yaram Aliou Cissé nekkatu nag entraîneur bu équipe nationale bu football fédération sénégalaise bu football ni nag ñoom dañu daal di tënku nag ci bëgg-bëggu ministère des sports lank nag ngir daal di renouveler lii di contrat wu Aliou Cissé bu nu sukkandikoo ci wiwi sport muy xam ne ni ministère des sports bokk na ci li nga xamante ni la teg nag ci taabal ji ngir tax mu gàntal nag ba ni du joxaat Aliou Cissé beneen contrat mooy dellu ginnaaw